إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيان بokk jullit yi xam ngeen ne day ñi ngi continuer ci loolu ñuy tuddee coupe du monde coupe du monde boobu nga xam ni ñaka nekkoon di ko xalaat ca fin dix-neuvième siècle muy yahud yu bon yi nga xam ne seen protocole boobu ñu defoon ca Sion muy le protocole des sages de Sion bokk na lañu xalaatoon nu ñuy def ba dominer adduna bi ba détourner xalaatu adduna bi ci seeni xalaat loolu mbokk gisoon nañ ca la ca gën a màgg moom mooy am po po yooyee la ca gën a siir mooy football ak musique looloo tax ba dem nañ ba créer loo xam ne nii tey jii daanaka àdduna bi yépp góor ak jigéen mag ak ndaw itteel na leen daanaka dem nañ ba lu bari ci problème politique économique daa di dépendre ca la nga xam ne mooy seen gisinu football boobee suñu borom nag jàll waala ngiree moom mi nga xam ne moo xam tey ak ëllëg teeloon naa avertir jullit ñi di leen wax attention seen jubluwaay warul nekk foofu seen jubluwaay mooy ngeen xool ña yàlla subhanahu wa taala gërëm ngeen jéem leen a bëgg jéem leen a roy ci ngeen di texee àdduna ak àllaaxira moo waraloon suñu xutba bi passé ñu jagleel ko équipe boobu nga xam ne tey jii boo demoon dans le monde entier li ñuy tudde football onze personnes la ñuy tànn muy fukki nit ak benn yàlla ci xikmaam dogal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam toog ak sahaaba yi ne leen yonent bi day àjjana la jëm loolu da nga naan dërul woon a wax mu teg ca fukki sahaaba ne àjjana lañ jëm waaye ndekete loolee day jur les onze ya nga xam ne tey suñu ndaw ñi détourné nañ ca seen xel e waaye yéen ndaw ñi ña ngeen war a bàyyi xel ca góor ña ña ca jiitu mooy yonent ba sallallahu alayhi wa sallam ak diis yooyu nga xam ne tànnoon na leen bégaloon leen ci àjjana ci kanamu sahaaba yi waaye yéen jigéen ñi tey ci yéen lañ ñëw suñu borom yàlla ci xikmaam jalla waala noonu la tànne woon benn équipe équipe de onze fukki soxna ak jigéen la yonent bi alayhi salaam masa bokk ak lal fukki soxna ak jigéen loolee mbokk jullit du hasard suñu borom yàlla mi ngi woo la nga xam ne muy góor ak jigéen football boobee daanaka dans les avant les années quatre-vingt góor ñi rek la dofloo woon mais biñ demee ba dans les années quatre-vingt rawatina ñun au Sénégal avec CAIR 86 ak leneen jigéen ñi tey ñoo gën a drogué ci football bi ko góor ñi. ngallawaayu mbokk jullit du noonu du noonu seeni jubluwaay ñi ngeen war a jàng roy leen xam leen du ñii yéefir yi màggal ci seen kanam def leen ay idole ay star ci seen kanam wan leen ay lañu nga xam ne moom la ñuy gagné ci milliard léeg-léeg ñu naxe leen ni ils ont réalisé tant et tant et tant loo xam ne mutul azaka sax la ñuy gagné ngallaawaay yéen jeunes yi loolu bu mu leen emporté yéen jeunes filles yi loolu bu mu leen emporté kaay leen tey ñu dellu ci équipe bi gën ci équipe ci jigéen ñi équipe bi yàlla tànnaloon suñu yonent sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu daal di koy wër mbokk suñu borom yàlla subhanahu wa taala moo tànnal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay soxnaam soxna yooyee ànd ak yonent bi ca coonaam ba ca jihaatam ba ca taxaw ngir diina taxaw dund ak moom jafe-jafe yi metti ya bokk na lañ ca suñu borom yàlla di nettali mooy kër yonent bi metti woon na lool daanañ dem ba toog ñaari weer wala lu ko ëpp cin du tàkk ci kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndox ak tàndarma la ñuy dunde ndox ak tàndarma la ñuy dunde diiru ñaari weer mbokk loolu nekkul loo xam ne ni lu yomb la de teewul ñu muñoon ko bañ demee ba sax di xalaat yonent bu commencé am ay ngañaay ñu bëgg ñoom it en tant que jigéen ndax li ñuy dégg seen moroom yi jigéen ñi duñ ko am suñu borom mën a yonent bi wool sa soxna yi ne leen bu dee dañoo bëgg taaru àdduna kaay leen ku nekk lu mu bëgg na wax ma defal ko ko ca mu dem mu teqali ko ak man amma bu dee da ngeen bëgg ngërëmal yàlla ak ngërëmu yonenti yàlla xam leen ne yàlla mi ngi leen di xaare ajjana ajjana joo xamee ni nii mbokk julit kenn mënul xalaat ba xam nu mu mel ñoom ñépp mboolo seen ñu ne tànn nañu ànd ak yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la ñu àndoon ak yonent bi alayhi salaam ca jaamu yàllaam nga ci guddeem nga ca bëccëgam ba ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di faatu loolee da ngay gis ne gërëm leen xatta la nga xam ne mooy itikaaf ba mu daan itikaaf te jàkka ja daa nañu ànd ak moom di itikaaf ci jàkka ji yonent bi jóge fa ña ca des des fa ña ca des des fa ba juróom ñett ñaar ña sa desoon yépp weeru koor bu nañu def itikaaf ci jàkka ja mbokk ñooñu ñooy royukaay yi ñooy équipe bu mag ba suñu borom yàlla subhanahu wa taala ne leen ay yéen soxna yonent bi yéenay référence ku fi def benn benn njombe su may mbugal keneen benn mbugal ñaari mbugal laa lay mbugal waaye su dee ne nag nangu ngeen déggal yàlla ak yonent bi danaa leen boole ñaari pay looloo tax ba ñoo jiitu woon ca ndigal yàlla ak ndigal yonent yàlla suñu borom na leen ay yéen soxna yonent bi yéemu leen ak benn jigéen ngalla way fexe leen ba heure bu ngeen dee wax jox leen référence jàngal leen seen moroomu jigéen ñi waxin ca may heure bu ngeen di wax ak góoru jàmbur na ngeen wax wax joo xam ne ju correct la ju gàtt la joo xam ne soxla ba jeex na waaye bu leen nekk di lem seen kàddu yi mu wuteeg tey la nga xam ne moom lañu gis ci jigéen ñi tey nañuy laami sonte góoru jàmbur waxtaan ak góoru jàmbur duñ ko defee sax seen jëkkër ak seeni sœur ak ak ak seeni seeni frère loolee mbokk njuumte la suñu boroom mu ne wax leen wax ju jub gannaaw ba yéen soxna yenent bi ngalawaay bu leen nekk di paraj paraj fu nekk bu leen dee génn ne bu leen génn comme ni jaahiliya daan génne mbokk jigéen wurte génn këram lu dul ci lu munta ñàkk heure buy génn mu war a sutural awraam ba du attiré benn góor te la nga xam ne mooy parfum yi muy tuuroo te la nga xam ne mooy toilette ba nga xam ne moom lay def gannaaw ba suñu borom mu ne ay yéen soxna yenente yi xam leen ne day yàlla da leen a bëgg a laabal ak laabal yàlla da leen a bëgg a laabal ak laabal kon fàttaliku leen li yenente bi jàng ci seen kër yi ca la nga xam ne mooy alquran ak sunna waskurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma lu manqué loolu ci tay kërug julit ñi mooy dajeeg njaboot gi di leen jàngal alquran ak sunna dajeeg njaboot gi di leen former ci seen diine mbokk loolee da ngay gis ne ngalawaay yow jigéenu julit bu dee ne yow kenn woowu la ci loolu tey day suñu borom yàlla wàccoo naag jaam yi portable yi nga xam ne da ngeen a yor tey ji bu leen neexoon bëccëgu tey bi mboole mu xutba yi ñu xutba ci Sénégal ngeen déglu ko bu leen neexoon kaamil alxuraan yu ne ngeen déglu ko bu leen neexoon xutba yi ñuy déglu Makka ak Madina ngeen déglu ko ngal la waaye seen temps boobu jag leen ko loolu fàttali ko jàng seen diine ba xam ko borom boobu subhanahu wa taala mbokk noonu la tànne soxna yenente boobu sallallahu alayhi wa sallam muy équipe bu mag ba équipe bu mag boobu nga xam ne ka ca jiitu woon mooy Xadija bintu Xuwaylid Khadija radiyallahu anhu Khadija bi waa Makka doon tudde a tahira mooy ku laab ku selli ki avant l'islam comme niñ doon tudde suñu yonent yàlla Muhammad al amin ku wóor ki avant l'islam yàlla subhanahu wa taala a tahira ku laab kooku la jëkk a tànnal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla mayoon ko alal lool góor yi Makka yépp jublu woon ci moom waaye moom moo tànnal boppam di xool ci histoire yu gudd mas nañoo taxaw ci minbar bi def fi xutba spécial ci Khadija mi ngi ci biir internet bi yéen ñi ko bëgg a déglu waaye ala kulli xaal ci gàttal moom moo tànnal boppam gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak jukko yu kawe yi nekk ci moom mu yónni xaritam bii di Nafisa na ko ndax doo dem ci Muhammad ndax moom bëgg naa nekk sama borom kër biñ ko waxee suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam yonent bi nangul ko loolu loolu it muy wane ni lay aada ci àdduna yépp mooy góor yi uti soxna waaye yow it jigéen xamal ne su la yàlla mayee xel boo ràññee ca amoo borom kër it dara nekkul nga xool góor goo xam ne nii wóor na la ne ku jub la ku am diine la ku am jikko ju rafet la nga gaaral ko sa bopp ndax sëy bi gën a barkeel ci kaw suuf mooy sëy boobu nga xam ne mooy suñu yonent bi ak Khadija moo ko jural mboolemi doomam ba mu des Ibrahim ba Maria alqibtiye jur mbokk gannaaw kooku nga xam ne nii moom mooy suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam ak Khadija Khadija boobee suñu borom yàlla yónni ni Jibril ne ko demal ne Khadija maa ngi koy nuyu moo tax gaa yi xam ngeen li ma wax suñu yonent yàlla yónni na Jibril mu ñëw ci yonent bi alayhi salaam mu ne ko sama borom nee na waxal Khadija suñu borom yàlla mi ngi koy nuyu mi ngi koy waajal kërug pale boo xam ne ay perle lu lu lañ ko defee rek ci àjjana amul benn coow bu fay am loolee lu waral loolu mooy ànd naag yonent bi alayhi salaam ñaar fukki at ak juróom yonent bi musa wax mu teg ci baat mu mu teg ci baat ñaar fukki at ak juróom yonent bi musa wax mu teg ci baat ñaar fukk at ak juróom musul tàngal xolu yonent bi alayhi salatu wasalaam ñaar fukk at ak juróom musul xam luy bëgg-bëgg yonent bi lu dul def na ko ko bala ko yonent bi di sant suñu borom yàlla loolu la koy fay radiallahu anhunna loolee waxoon naa la ay xutba moo la ñuy wax ci moom gannaaw loolu mbokk suñu yonent alayhi salatu wasalaam ba Khadija faato di lu ko gën a marqué ci dundam ba at boobu ñu tudde ko atum tiis mi ca la ko yàlla boole ak ka nga xam ne mooy sawda bintu zama sawda boobu nga xam ne yonent bi nekk nag moom ñetti at moom kese mi ngi noonu takk na Aïcha waaye sawda la nekk loolu ndax Aïcha xala la moom it mu wone la nga xam ne mooy melokaanu jigéen bu baax bu bëgg yàlla bëgg yonent bi bëgg bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu tax bi mu demee ba magee mu ne ay yemi yemi yàlla yónni man mag laa Aïcha mi xala la bis bi nga war a aaye ci man may naa ko Aïcha ngay dem di aaya ci moom ndax mbooli mi soxna yonent bi alayhi salaam am na fuñ jaar Aïcha rek moo nekk benn jànq boo xam ne musul jaar fenn bi yonent bi alayhi salaam di faatu amul sax ñaar fukki at loolee mbokku sawda def na ko ngiree dab bànneexu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ngiree it indi la nga xam ne nii mooy jàmm ci kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolee ak ay yéem tey jigéen ñi tey waaye wallahi xataa suñuy maam dañ cey gis si loolu xataa ci suñuy maam xam nañ ñun sunu benn maam boo xam ne dafa woo borom këram borom kër gaa ngi am ñeenti soxna mu ne ko ay yow diw diw mii de mage na léegi mu passé quarante ans léegi dama lay ñaan bàyyi ma man ca nga takku ko def ko soxna góor gi bàyyi ko dem takku ko am na ci ak njaboot ba seeni sët tey ñu ngi dox ci ci Sénégal loolee mbokk da ngay gis ne kon jigéen ñu baax ñu noonu lañ meloon loolu tax sawda mu ne yonente bi alayhi salaam bul aayati ci man sama ay dee ko jox Aïcha gannaaw loolu ko kañetteel mooy Aïcha bi nga xam ne yaakaar naa yéen ñëpp xam ngeen ko Aïcha jigéen bi ëpp xam-xam ci xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jigéen bi ëpp xam-xam ci xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sahabatul kiram heure bu ñu masaan juyoo ci moom la ñuy delloo loolu it muy wane ne yow mi koy def sa yaay ngallaawaay xam-xam dalaa war a yitteel nga góorgóorlu ci sa kemtalal kattan noonu it la ko suñu borom yàlla boole loon ak soxna suñu tudde Hafsa Hafsa boobee nga xam ne borom këram ma nga daal woon ca Uhud yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca lay dem daal di koy jël fekk bi muy dëkk bi borom këram di daanu presque ay vingt ans la am Hafsa bi muy faatu presque trente ans rek la am. waaye noonu la ko suñu borom yàlla subhanahu wa taala séedale ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam xafsa mii day xamal ne na nga koo saxal ci say soxna ndax ku mën a taxaw naa fi lu guddi la ku mën a saxal ay koor la radiyallahu anha gannaaw ba la jël ki nga xam ne nii mooy zeynab bintu xuzayma ñu ko doon tuddee umul masakin di soxna soo xamee ni nii mbaa xam ñëpp xamoon nañ ko miskin yëpp daan ñëw ci moom mu leen di jàppale doonte ne yàggul ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam presque dunduñu lu mat at moom ak Khadija ñoo jiitu ci soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ki yonent bi alayhi salaam mës a jullee ci ay soxnaam ndax Khadija bi muy faatu julli néew xewagul yonent bi ko taxawu jullee ko delloo ko boroomam juróom-ñeent yi nag ñoom ñoo dund gannaaw yonent bi kon loolee da ngay gis ne gannaaw Zeynab boobu am na soxna suñu tudd Umu Salama kooku nga xam ne moom it doyoon na xutba jigéen boobu nga xam ne gaddaayam nga rek buñ ko doon nettali doyoon na xutba jóge Makka bëgg a gaddaay ànd ak jëkkëram la nga xam ne mooy famille am bloqué ko ne ko doo dem mu toog un an yoo xam ne bis bu xëyee day dem toog ca yoon bi di jooy lu tax mooy non seulement nangu nañ doomam teqali ko ak moom teqali ko ko ak la nga xam ne mooy jëkkëram waaye gis nga ba mu ñëwee ba Madina yàlla dogal borom këram ba faatu ca la ko yonent bi alayhi salaam jël ko boole ko ci ay soxnaam gannaaw yàlla keroog ba yonent bi demee ca ah li ñu tudd al Hudaybiya bëgg a umra waa Màkka ne ko doo fi dugg yonent bi jaaxle lool ñëw ci yaay umu salama ne ko musiba am na de mu ne ko lu xew mu ne ko sahaaba yi sant naa leen ñu bañ mu ne ko déedéet xam nga luñ la bañal émotion bi ñu nekkee moo kawe génnal rek yow nga rey sa gileem nga watu nga xool yonent bi génn rey gileemam watu sahaaba yépp jóg daa dina xam ne yonent bi caaxaanul rey seeni gileem daa di watu ka nga xam ne moo génne woon sahaaba ya ca fitna boobee mooy soxna bu ñuy tudd umu salama laaj leen suñu doom yi jigéen ñi nga xam ne xam nañ équipe nationale xam seeni soxna laaj leen ndax mas nañoo dégg tur boobee tey jii nga delluwaat ci ka ca des mooy zeynab bintu jaash kooku nga xam ne bu daan wax ak soxna yonent bi lu mu leen daan wax duma seen moroom yéen ñépp seen bàyyi ñoo leen maye man yàllaa ma maye ca kaw arasham yàllaa ma maye ca kaw arasham seedaloo ko malaaka yi naam ndax suñu borom yàlla moo bëggoon a indi loo xam ne arab yi dañ ko doon def mooy jël nit doomoo ko yonent bi génne fi loolu daa di dogal zeynab bintu jaash sëy ak ka nga xam ne mooy zayd ibnul xaarisa ci ndigalu yàlla ak ndigalu yonent yàlla ndax du nawleem waaye suñu borom mu ne bu yàlla ak yonent bi diglee julit amul choix mu nangu ndigalu yàlla ak ndigalu yonent yàlla ba mu soobee yàlla mu teqale leen boole ko ci soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nañu waxee woon ci Zeynab bintu Xuzayma it loolu la ñuy wax ci moom yonent bi alayhi salaam toog na ak i soxnaam ba mujj mu ne su ma faatoo day ki gën a gudd loxo ci yéen moo may jëkk a fekk si nee na bi yonent bi Aïcha nee na bi yonent bi faatoo ñun ñëpp ñu daje ku nekk di mesure sa loxo ñu gis na sawda moo ñu gën a gudd loxo waaye ba ñuy demee yàggul dara Zeynab bintu Jahsh gaañu ca la ñuy doog a xam ah li yonent bi ndox gudd loxo mooy moo dàkkoon a sarxe ci ñun moom da daan liggéey di ñaw di liggéey lu mu am da ko daan jël di ko sarxe kon ñu xam ne gudd loxo bi yonent bi doon wax mooy la nga xam ne mooy sarxe boobee gannaaw loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokkoon na ca soxnaam yo ku ñuy tudde safiya bintu xuyay koo xam ne ab juif la woon waaye suñu borom yàlla jalla wa ala boole ko ci soxna yonent bi mu dëggal yonent bi mi ngi noonu ñu fekke woon tafsir bële passé rek gis nañ lañ doon wax ci moom safiya boobee mbokk julit gannaaw loolu la yonent bi alayhi salaam jël kii nga xam ne nii moom mooy juwayra juwayra boobu nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na lu ñuy jëlee ci moom mooy xadis bu siiw boobee nga xam ne yonent bi alayhi salaam dafa dem fekk juwayra mi ngi julli fajar ba pare toog benn place yonent bi dem ba boori midi daanaka mi ngi ñëw mi ngi fekk yonent bi mi ngi fekk juwayra mi ngi toog benn place di jàngal quran di zikrullah yonent bi yërëm ko ci loolu naka juwayra yaa ngi fi ma la bàyyi woon mu ne ko waaw mu ne ko xam naa maa ngi lay bégal ci ni wax naa sa gannaaw ñetti baat yoo xam ne ni day moo gën li nga wax ba nga xëyee suba ba tey mu ne ko yum yàlla yu ne jàngal ma ko mu ne ko da nga naan subhanallahi wa bihamdihi adada xalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshi wa midaada kalimati loolee ñu ngi ko jële ci juwayri boobee waaye la cay témoignage mooy gis nga toogaay ba mu toog doy dawul rek ne man soxna yonent bi àddina laa jëm laa waaye gis nañ toogaay ba mu toog zikrullah jàng alquran ba ba heure boobee noonu la ca bokkee ca soxna yooyee mbokk kii nga xam ne mooy umu habiba nga xam ne moo nekkoon doomu abu doomu abu sufiyaan àndoon nag jëkkëram gàddaay ca abasha bañ demee jëkkër ji gis cré christianisme nam fa tasaaroo mu murtat umu habiba sax ci diineem ba najaasi moom ba mu duggee ci lislaam ca la ko may suñu yenente sallallahu alayhi wa sallam mu ñëw bokk ca la nga xam ne mooy soxna yooyee ka ca mujjoon mbokk mooy maymuna bintul xaarisa mi nga xam ne moomu tamit yenente bi sallallahu alayhi wa sallam gërëmoon na ko lool ba yaay aïcha radiyallahu anha daana wax ne ñun soxna yenente bi day ki gënoon a ragal yàlla ci ñun gënoon a mën a jokk mbokk ci ñun mooy maymuna bintul xaarisa mbokk soxna yenente bi ñi ngi nii ci liñ leen mën a tënkal ci xutba bi suñu borom def ko mu nekk suñuy yaay annabi awla bil muminina min anfusihim wa azwajuhunna wa azwajuhu ummahatuhunna képp koo dégg ci soxna yonent bi war nga koo jox cër bu gën a màgg sa cëru yaayu bopp ñaareel ba gëmal na soxna yonent boobee yàlla daa tënkoon yonent bi ci qualité ay yéen julit ñi may naa leen ngeen am ñeenti soxna ku dee remplacer leen bu leen neexee ku ngeen fasa remplacer leen am maa yow yonent bi sa juróom-ñeenti soxna yii nga nekkee ñaar yi moom jiitu woon nañu mu ne ko amoo droit changer leen ba borom xam-xam yi dañu naan bu juróom-ñeenti jëkkoon a faatu yonent bi célibataire lay faatoo loolu muy lay xamal ne mbokk julit julit amul droit passé ñeenti soxna soxna yooyu ñu war leen a bëgg war leen a gërëm war leen a màggal te it xam ne suñu borom yàlla subhanahu wa taala ci xikmaam moom moo defoon loolu amul benn ci soxna yonent bi su doon xutba bi mayee na ko kenn par kenn lu dul la taxoon mu takk ko mooy ngir jokkoo ci wàllu société ci wàllu politique ci wàllu leneen ak leneen loolu moo tax waaye bu doon bànneexu bakkan rek yonent bi kam taawoo moo ko ka ka kam aawaloo di xadija moo ko mag fuuf toog na vingt cinq ans takkul beneen soxna bu doon rek daa bëgg ay jigéen ndax loolu dana mën a nekk ci jeunesse am ba mu fa jógee mu takk koo xam ne jaaroon na ci sëy toog na trois ans takkul keneen kon ba mu demee ba nekk Madina nag nekk la nga xam ne mooy cité état boobu nekkoon nekk buur ca la takkoon ay soxnaay soxna ci ndigalu yàlla soxna bu nekk am xikma bu tax mu takk ko mbokk ñii ñooy suñu royukaay ñii ñooy ña nga xamee ne nii yàlla tànnoon na leen ay yéen julit ñii góor ak jigéen àdduna bañ leen a nax la tax ñu ñëw fii ci kaw suuf wallahi du ngir liggéey nekk ay maçon am ay jabar ki doom la tax ñu indi fii ci kaw suuf suñu borom daa wàcce woon suñu baay aadama ne dem leen danaa leen yónnee samay ndigal ak samay tere koo xam ne jaar na fi ma neex danaa ko indi alaxira tabbal ko ajjana mu sax fa xaalidina fiha abada ku jaarul fi ma neex ak loo mën a dund ci kaw suuf président général milliardaire lu la neex nekkal safara moo lay xaar su ko defee kon ñun ñëpp ñu bàyyi xel loolu la nga xam ne mooy suñu jubluwaay suñu royukaay suñu onze yooyu nga xam ne war nañ leen a bàyyi xel fu ñu mën a toll ca góor ña mooy sahaaba yu mag yooyu ma leen waxoon ca xutba bi passé ci jigéen ñi ngal la waaye yéen jigéen ñi bàyyi leen xel ak góor ñi Khadija bintu Xuwaylid kii nga xam ne ni moom mooy Zeynab bintu Xuzayma kii nga xam ne mooy Sawda Aisha Hafsa Ummu Salama Zeynab bintu Jaash Ummu Habiba Juwayra Safiya Maymuna ñii ñooy fukk jigéen ak benn yi nga xam ne ñoo jàppale woon yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci zahir ak ci baatin bokk ne xikma bi gën a màgg mooy société bi ñaar moo ko séq góor ak jigéen jigéen ñi ñu bari yàlla teg na ci ñoom ay fiq yoo xam ne wàllu wasin wàllu ay règle wàllu ay idda loolee pour ñu yegg ci yonent bi di ko laaj daana jafe looloo tax soxna yonent boobee ñoo nekkoon la nga xam ne mooy relais ñoo jàngal jigéen ñi la nga xam ne mooy lépp loo xam ne ni àdduna ci seen wàllu jigéen loolee bokkoon na yët ci xikma yàlla subhanahu wa taala bëril ay soxnaam mbokk ñaari équipe yaa ngi noonu ñee ay góor lañu ñee ay jigéen lañu ñi ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mi borom xol yi yal na wëlbati suñu xol ci équipe yooyee yal nañu yàlla wërsëgal suñu taxawaay mooy jéem a mel ne sahaaba ya suñu mboole mi soxna ak suñu mboole mi jigéen jéem a mel ne la nga xam ne ni moom mooy soxna yonent boobee nga xam ne yàlla bu daan wàcce ay ndigal ci ñoom la koy jaarale lii nga xam ne tey jii mooy ràññet li jigéen ñu baax ñi jigéen ñu bon ñi ci ñi am xel mooy muuraay gi muuraay gi ba ko yàlla di wàcce suñu borom dana yaa ayuha nabi qul li azwajik wa banatik wa nisaai lmuminin ay yow mi yàlla yónni waxal sa soxna yi nañuy muuru wax sa doomi jigéen ñi nañuy muuru nga doog a wax jigéenu jullit ñi nañuy muuru lu tax kon loolu dañuy wane ne yéen jigéen ñi seeni fans club seeni royukaay ña ngeen war a bëgg ña ngeen bëgg a war a mel ne moom mooy soxna yonent boobu nga xam ne ñooy dëkk ak moom ci àjjana yal nañu yàlla boole góor ak jigéen ñooy dëkk ak ñoom ci àjjana yu kawe ya allahuma rabbana atina fi dunya hasana wa fi alakhirati hasana wa qina azaban nar allahuma habib ilayna aliman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna alkufra walfusuq walisyan waj'alna min arrashidin ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين